Bye. tax mu woonoon wooyewu leen wut dara ci wut dara wooyewu leen di wut dara ci dara ne bu fekkoon te ni da leen di wooye di wut dara ci dara kon dina sàkkal wax barab bii ne kon dina ba nawet ma def ko da leen di woo ngir topp digalu sëñ Tuubaa ak di leen wan na mu toll na ndigal li toll woon ci moom. ni ngeen dikkee nag neex na lool bëgg naa ci. ni ngeen dikkee nag neex na ko lool moom sëriñ bi bëgg na ci. mi ngi leen di gërëmal seen bit bu baax a baax. ndax la ko sëñ Tuubaa santoon mooy li ngeen def. da ko santaane woon nag. da ko santaane woon nag. booba mi ngi fi di ko doxal. doxal na ko diir bu gàtt. na ko diir bu gàtt. yàlla te mu dikk ci barab bu tedd bi suñ Modou Moustapha mi nga xam ne moo fi nekk notam doon na ko doxal moom itam yàggul man mii nga xam ne maa fi nekk léegi nag damaa def koo xam ne kii ngottuma bëgg naa rek mu yaatu yaatu goo xam ne mu yaatu yaatu goo xam ni la mu ci bëggoon la ci sëñ Tuubaa bëggoon lépp mu am ko ci ah mu ko ci la mu la mu ci ñëpp am ko ñëpp am ko ndax bu ma sañoon lu baax laay am baax laay am te bokk ko ñëpp moo tax bis bii nga xam ne dañ ci war a ko santaane muy sunu bis muy sunu bis ñëpp di ko fekke dama bëgg ñëpp di ko fekke si bu ko defee bu ko defee lanu ci yaakaar ci moom lanu ci yaakaar ci moom mu bëggal ñu ko moom itam mu bëggal ñu ko dana ko am na mu ko bëggee ci noonu dinañu ko am na ci noonu dama bëgg daal dama bëgg daal bi nga xamee ni bi nga xamee ni waa penku gële waa ñu fi daje ji dañu fay daje ji tax ñu mën fa daje wala tax ñu mën fa daje mu jàmm ci kaw jàmm dañu am kiiraay dañu am kiiraay ma bëgg taw bi itam ma bëgg taw bi itam dañu penk boobu neew ñu penk boobale ci kaw kiiraay bi ñu am Gamaya

حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة